ñi ma tooñ ak ñi ma tooñul sax di baal tamit di baalu tamit ñëpp ñi nga xamante ne tooñ naa leen ci li ma yëg ak ci li ma yëgul di baalu sax ñoo xamante ne tooñaguma leen te di ñaan yàlla mu boole ñun ñëpp baal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu